responsable APR dëkk Touba Bokhatul Moubarak nekk ci son jànnatu ak Bokhatul Moubarak ñoo organiser fi un point de presse boo xam ni du ñu liggéeyal président de la République loolu lañ bëgg a feeñal ba askan wépp xam ne nekkoon nañ ci ginnaawam di ko liggéeyal loolu dañoo am benn coordinateur bu ko coordonné woon ku ñuy wax Moustapha Seck jàpp naa ne Bokhatul Moubarak ak Jannatul Mahwa bu ñu leen boolee Moustapha di ko coordonné loolu xol sedd na ci ndax sëñ Saliou ko sañcoon kon bu ñu ko boolewaatee loolu dañ ci amal mbégte ak fierté di sant Sénégal yëpp bi nga xamee ne am nañ xalaat ci ne président war naa mën a yor réew mi ñu delloowaat ko ko ba mu am deuxième mandat loolu ak cant la. waaye ñuy fàttali président na ko Moustapha Seck mi nga xam ne ndaw la loxoom set na mën naa bokk ak mag ñi kenn falu ko kenn fayu ko waaye moo doon coordonné diggante Bokhatul Moubarak ak Jannatul waa ba li fi feeñ ci résultat bokk na ci ñi ko gën a fésal. kon kooku dañuy bëgg président jëmmi jamono june mu bàyyi xel ci ne ndaw lu sawar la war na ko mën a bàyyi xel te mën naa yóbbu bu mu rek ak jëndatul waa feneen fu gën a kawe fii loolu nag su fekkee ne président jàppale na ko cooc lay gën a gaawee te noo ngi tàllal président de la loxo ci Moustapha Seck ndax boo lëg si biree cër yi ñuy séddale Sénégal mu bàyyi ko ci xel parce que ndaw la te nangu naa joxe alalam sonn na ci parti bi investir na ci alalam te loolu bëgg président am ndam moo tax loolu damaa bëgg yéen ñëpp ngeen tam ne loolu Moustapha def na ko ma bëgg président xam ne buy investir lu mu mën a doon mu ko fal ci digg ci département bi mu conseil départemental ak lu mu ci mën a doon mu bàyyi ne Moustapha ndaw la loo xam ne mën naa teg fii loo xam ne nii moo gën a baax la fi nekkoon te jàpp naa ne kuy lu baax lu ne soo gisee lu ko gën da xam ne lu gën a baax moo gën a baax te Moustapha jàmbaar la joo xam ne mën naa yóbbu président de la République fii ci Touba fu mu foogutoon boo gisee élection yi passé 37000 voix amee grâce ak Moustapha Seck diggante jànnatul mawa ak boqatal bu baarak nag mooy suñu coordonnateur bi nga xam ne xam nañ ne guddi ak bëccëg suba ngoon kenn falu kenn fayu ko muy investir alalam ànd ak nun ñii nu jiitu ko waaye nun dañuy wax président nekkoon ko nanu jàppal Moustapha Moustapha nag noo ngi ci ginnaawam la sëñ Mountakha waxoon lañ koy wax ku dox mu dox ku doxut mu dox Moustapha doxal nu dem Sénégal jëm ca kanam noo ngi ca ginnaaw dañuy ànd ak yow ba nga xam ne ni ko nu ànd ko yow ba mu am ci lu kawe njottam noo ngi leen di gërëm bu baax di sant waaye président de la République Macky Sall ñu ngi lay sant bu baax ci victoire bi di la ñaanal yàlla na la jig jig Sénégal waaye nanga nga bàyyi xel ci ne Moustapha Seck mii de sonn na war naa fayu war naa falu tey askan wi topp ci ginnaaw mënu leen a def lu dul nga teg ko foo xam ne boo lëg si biree bu geesoo mën a gis askan wi ñu xam ne lan ko toppoon kat gis nañ ko ndax nag nit kat boo fekkee ne gis nga ginaar muy toppi kuy taxani walaay daa gisut kuy bojji te Moustapha jàpp na ne kuur la yor jëm ca dagga jeey bojji te sa bojjee président Macky Sall la bëgg mu toggal cere joo xam ne bu ñu ko ràccee Sénégal yëpp mën cee jariñu kon noo ngi leen sant bu baax président noo ngi lay gërëm ci ndam li yal na la jik yal na jik Sénégal. seen maa ngi tudd Soxna Maguette Diouf di représenté ci Sàmm léegi ñun li ñuy ñaan président Macky Sall ndam li mu jël yàlla na ko jik njig waa Sénégal yëpp waaw ñun nag sunu bëgg-bëgg. bëri na lool bëri na parce que bu ñu sañoon dañuy changé Moustapha Seck mais ñu dugalul ñu ko ci biir muy liggéey parce que Moustapha liggéey na saam quartier Astou Gawane bokkatul amul xaraa loo xamante ni rëy na yaatu na ndax Moustapha dafa doon jël ci xaalisam di def ci jigéenu saam yi maire mbootaay yi groupe bu bale yi ñëpp Moustapha di def ci ñoom renk ñu jàppale Macky Sall pour mu yéeg ñun nag am nañ yaakaar ne kooku doon jël xaasam di ko def ci doomu aadama yi pour ñu jàppale Macky Sall mu yéeg am naa yaakaar ne bu ko Macky Sall dugaloon biir présidentiel muy liggéey wala mu dugal ko ci maire bi wala yooyu muy liggéey Sam dina waa Touba dinañ kontaan Touba yëpp Moustapha dale na mën a boot parce que bëri na yërmande laabir na xol bi rafet na ordonnance Moustapha moo ci mën ngénte fii xarum tudd Moustapha moo ci mën ak yu bëri nag yu muy def te buggu cee feeñ ma bëggoon ngir yàlla Macky macha ñun waa Touba li ñu lay ñaan la la mun sëñ a waxoon euh, Macky Sall ca kaw ca kalam mais bëgg nañ Moustapha mi ca kaw ca kalam nga yóbbu ko ba ñun ñii nga xam ne moo ñu doon jàppale ñu di la jàppale ñu xam fi ñu féete bëgg nañ cee gis suñu bopp de. comme ni ko jëwriñ waxee rek Mbaye Sall noonu la demee ñun ñoo ngi dëkk fii nekk ci zone bu Xatamba ak Jannatul Mahwa euh, élection yi passé ñu gis fii tamit résultat yi nga xam ni am na fii ñuy demander à son excellence monsieur Macky Sall à ce que mu euh, jox ñu considération bi war Moustapha Seck ñi ngi ñaan euh, conseil départemental bi ñu investir ko ci ñi ngi ñaan tamit même pourquoi pas euh, kii coordonnateur bu Touba. parce que boo xoolee tubaa problème yi am yëpp booy xool dañ ci xaw a impliqué jeunesse bi. ca Moussa Fadjane la boo xam ne jubóo nag mag ñi jubóo nag ndaw ñi te tamit euh, parrainage yi aussi ma koy fàttali mi ngi ñëw te boo xoolee fii bu xaatul mubaraka trente sept quartier ou même trente huit euh, y compris bu xaatul mu comment dire jànnatu mahwa loolu yëpp ñu ngi ci ginnaaw Moustapha te jeune la boo xam si jàpp naa ne bu ko président jàppalee lim bëgg tubaa dina ko am loolu daal moo nekkoon loo xam si ñu ngi koy sollicité xëy na ñeneen suñu ginnaaw dinañ wax li ci kanam. mais Moustapha jot na fi mu ne nii pour ñu changer kanam yi fi nekk xar kanam. effectivement effectivement parce que équipe boo ko amee ca équipe bi ngay gis ni doxul ni wala am na kii da nga koy changer te changement bi ñëpp xam nañ ni ci jeunesse bi la war a nekkee te ku mel ni Moustapha à travers par exemple département bi yëpp koo laaj wax ji benn la. jiwoon naa jeunesse bi jiwoon naa ak mag ñi jiwoon naa kilifa yi te tamit jàmbaar la day investir alalam di di dox di liggéey te kenn fayu ko dara. fii daal ñu ngi lay xamal ni Touba moom booy xool par exemple quatre vingt dix pour cent yëpp Moustapha Seck moom la ñu àndal waaw waaw loolu moom nañ ko nañ ko nañ président daal ni ñu koy ñaan bu bëggee Touba avancé na investi Moustapha Seck ñun nag bañuñu ci dara parce que Jannatul Mahwa ak Boukhatoul Baraka ñu ngi si ginnaawam ñoo ngi xaar président à ce que conseil départemental bi mu gis si boppam investir suñu leader même coordination bu Touba sax mën na koo yore parce que Moustapha ànd naa ki bokkam ca am na mbooloo ci politique loolu